الحمد وشكري من كل بيسارة لو إذن دون سقط عند سرسارة عبد وشكري من كل بيسارة لو إذن دون سقط عند سرسارة لو سناي وردوان بلا سقط مسقط لي من بني بيمان أنصارا عبدي وزغري لي بإشارة لو ردا دون سقط عند صرفا fi teew yëpp ñu ngi tuub bu baax tey jéggulu kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko yëkkati ci kanam suñuy kilifa muy sëriñ Sidi Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada na fi yàgg lool te ànd ak wér ak soxna maam Issa Mbacke bintu sëñ Modou Fati Xari ibnu Cheikh Mazamba yàlla rek boole leen ak bokk boolewaat leen tam liggéey bi nga xam ne liggéeyu Sëriñ Tuubaa la muy liggéeyu Sarsara euh, sëñ bi tam jiital gi ko yàlla jiital ci kanam mbooloo mi ak waa réew mi ñun itam ñu ñëw nangul ko bu baax a baax fa yéene topp ci ginnaawam euh, ak mboolem bokki soxna si mu àndal soxna Ndey Mbàkke mi ngi ni toog moom soxna Bintu Mbàkke moom Sëriñ Mbàkke dina ak soxna Ndey Saynu Mbàkke rakkam ak kilifa yu bari yu sant Mbàkke yu ñu àndal yàlla boole leen seenu bokk ngir jëm suñ boroom ngeen di ko rafetal kon sëriñ bi délégation bi soxna si àndal yëpp ñu ngi lay nii bu baax te di la ziyaare di la xamal rek ne la lim daan wax rek lay wax ndax euh, sëñ Abdu Lahat daa wax ne loo am attan koo joxe ngir yàlla rek foo geesoo gis ku la ko ngir yàlla loo am attanoo koo joxe ngir yàlla boo doon wër àddina ba mu daj doo gis ku la ko attana jox ngir yàlla nee na tam loolu waxi sëñ Tuubaa la te bi mu koy laata wax da cee jaar ba jàll soog koo wax kon nag moom nam la ko waxee woon rek neen noonu la koy feddaleewaat liggéey bi moom dafa ñëw rek ngir jàppale la ci ndax sab liggéey la ndax eh, ku yàlla jiital ku ko jiital jiitu kon nag moom loolu nangu ko bu baax a baax te fas yéene itam waxtu wu nekk rek lépp lu ngeen nekk mu fas yéene ñëw jàppale leen ci ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa xanaa di sàkku rek nga dolli ko ñaan bu baax a baax a baax yàlla gën koo yombalal liggéey bu baax ndax Sarsara itam liggéey bi nekkul liggéey bu yomb liggéey bu jafe la te tam yàlla da ko def muy borom njaboot te tam njaboot gi tam lu ne àttan ko ci ñoom moo tax eh, yoon wi ah, laaj na yu baree baree baree bari waaye nag lépp moom dina ci def lim man ak lu mu mënut ndax sëñ Tuubaa tam doo yem ci defal ko loo man rek ndax danga koy defal loo man defal ko loo mënut euh, ndax euh, jóge Sénégal ñëw ba euh, Mauritanie Nouakchott rek dafa jafe rawati na nga dem ba Sarsara waaye bu ñu fàttalikoo suñ mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo doon jógee ci réew ma di dox ñun lu metti metti ci ñun rek danañ ko mën a muñ kon nag nee na nga gën koo dolli ñaan te gën koo dolli njaboot gi ndax ñi ko yàlla booleel mu ànd ñoom kat ay boroomi jom lañ mm-hmm. ñu bëgg sëñ Tuubaa ñoo xam ne dara ñoru leen lu may làq ngërëmal sëriñ Tuubaa te xam nañ ni fii mën nañ ko fee làqe kon nag nee mi ngi ci seen ginnaaw di feddaliwaat kóllëre gi di ñaan yàlla mu téyel ñu ko ci barkeb sëriñ Tuubaa ba liggéey bi ñu am ci ndam liggéey bu mag ba la ñu sumbutam ca Sarsara muy jumaa ja am waxtu ne nekk tam mi ngi ci def ay soññe di def ay jéego incha allahu taala loolu tam mi ngi ciy soññaat bokki taalibe yëpp kenn ku nekk gën cee takkaat laxasaay gën cee góorgóorluwaat xam naa su yàlla dogalee ñu dem fële ca Sarsara ah ba mbooloo mi daje niñ ko daan waxee rek sëñ Tuubaa rek ñooy alalam fu mbooloo mi daje rek euh, war nañoo mën a fexe ba ginnaaw Sarsara at mu jot benn yoon lay doon benn yoon boobu buñ dajee euh, sëriñ bi joxe ci donga yi kenn ku nekk wut loo ci mën a def ndax euh, nit ñi buñ dajee rek acca murit ji lañ fa mën a génne buñ tasaaroo waatee dootu yomb ba génne waaye ginnaaw yaay sa yaay yaay yaay kilifa gi nag ñun dañ du sañ rek dara teguñ ko ci ndigal moo tax loolu tam tàkku ci sa ndigal ak ndigalu soxna si nañ ko daan defee bu ñu demaatee ba àgg ci tam ñu ñu ñu jaayanteeg Serigne Touba ca barab boobee nga xam ne ku fa àgg sa xol num naatoon dana yokk te sa xol bu bu nangoo rek euh, joxe dootu nekk jafe-jafe ndax suñu laaj da ne nawet bu nangum xol yu nangoo ko gën xol yi nangul nañ koy sàkkuwaat ci yow soxna si jiite liggéey bi suñu àggaatee ca barab ba bu bëkki tali bi yëpp daje ñu defaat ab soññi ci jumaa ji ndax wax dëgg yàlla euh, liggéey bi war naa war naa gën a dox bu baax a baax a baax a baax loolu daal ñu ngi koy sàkku di la ñaanal nga yàgg fi loolu te wér liggéey bi sëriñ Mountakha teg ci sa loxo tey sëriñ Touba yàlla defal la ci tawféex te defal ko ci tawféex ngeen yàgg ko ànd euh, ñun taalibe itam ñu topp rek seen ginnaaw ndax loolu mooy suñu warteef ndax yàlla leen boole seen bokk kon ñun taalibe moom li war ci ñun rek mooy di ko rafetal ak di ko dëgëral euh, loola képp ku ciy taxaw moom yaa ngi ci li la war euh, te loola ci lañ fas yéene nekk incha allahu taala kon nag ñu ngi sala sant di la gërëm di sant ñi nga àndal ñëpp ci bokk yi fédération bi tam ñëw nañ Touba waxtaan ak ñun gàttan suñu fële ca Rosso li ñu waroon def lépp ak ñun def nañ ko euh, di la seereel nag suñ bokki taalibe yi nga xam ne ñoom dañoo nekk fii ñoom muy waa euh, Sarsara wala Xadi Karam naa ñoom kat sëriñ bi wax dëgg yàlla euh, def na defal na nu tiraanga bu nu war a defal ba sax weesu la nu waroon defal te suñu ko defee sa jëmma tax ndax yaa leen ci jox ndigal kon nag ñu ngi sant waa wala Xadi Karam naa Sarsara ci njiitu suñ Babacar di la ko seedeel di ñaan tam gën leen a yàlla dool leen tawféex ndax mbooloo mi ñu àndal bari na waaye bi ñu ba léegi noppalu wuñ nañ leen fekkee woon ñu taxaw di ñu gàttandu ba léegi ci noonu lañ nekk takk seen i ndigg laxasaayu lekkuñ naanuñ nelawuñ te sëñ Tuubaa rek jaral leen ko kon kat sëñ bëgg nañ nag nga ñaanal leen baax ba yàlla gën leen a dolli xéewal ndax ñoom suñu amee xéewal rek ngeen am xéewal kon nag nga ñaanal leen baax xam ne daal soxna si sant na leen gërëm na leen ñi soxna si àndal tam sant na leen gërëm na leen loo leen dolli ci ñaan rek mbàkkee doyut ndax ñoom seen i taxawaay rafet na baax a baax waa presse bi ñu àndal tam ànd gi ñu ànd ak ñoom ñu ci dara lu may di yokk sarsaara rek nit ñi gën koo xam loolu itam luñ ci def rek yow lañ ko defal kon nag ñoom itam ñu ngi sàkku nga ñaanal leen bu baax a baax ndax ñoom itam dañu bàyyi seen yitte bàyyi lépp te lañ ñu waroon a teg buñ ñu ko tegoon duñ ko attan waaye teguñ ñu ko jëmmi sëñ Tuubaa rek tax ñu ànd ak soxna si kon ginnaaw yooyu ngi la koy seereel nga ñaanal leen ñoom itam yàlla defal leen tawfeex gu yaatoo yaatoo ba yéene jiñ am ci sarsaara ñu matale ko ci niñ ko bëgge loolu daal moo nekkoon kàddu yi ñu ngi jégg lu baax lu ci dëng rek ci ñun la waaye daal li gën ñor ci wax ci mooy wala xadd karam naa sar sar daal soxna sant na leen cant goo xam ne Mbàkke dañ la koy seereel ndax ginnaaw yaa fi nekk ñoom di seen kilifa te waaw moom daal sëñ bi lu ñu am loo leen ñaanal rek loo leen ñaanal rek doy su fekkoon ne amul fulla wala amul fayda wala doxul ci Serigne Touba du gis menn mbokkam ndax Serigne Touba ji moom ñoo ko bokk nit nag mën na la cee jiitu waaye du te yéen ko bokk te Serigne Touba di nit ku mat koo xam ne kenn ku ne boo lambee sa bopp def ne ci yow doo nga la jublu kon kenn ku ne bu doon loola barke nga cay séentu wala teraanga wala leneen dangay ngay tëdd sa kër waaye nag ñun ñi war a liggéeyee Serigne Touba dañ ciy war a jiitu ñu gis ko muy jàmbaar joo xam ne aw doxinam kenn mënu koo dab kon nag sañ nañoo ànd ak moom nooy ci suñu yéene liggéeyal Serigne Touba ah Mbàkke nag yow nga war a xam ne yow yaay kilifa gi ñëpp te loolu xam nga ko te yaa ngi koy doxe waaye soxna maam Issa mais Mbàkke sañuñu ko sax waaye ñoo ngi lay ñaan sa barke maam yu baax yi ngeen bokk ngeen gën a jàppante gën a ànd ndax loolu kan Mbàkke mooy sagub yoonu mu mooy sunub sag ndax yéene nu fi indi seen maama nu fi indi liggéeyal seen maam rek moo nu fi indi kon nag sunu sañoon bu ñëwee lu sag bi yokku mi ngi fi sax waaye nag danoo bëgg rek mu gën a yokk gën a rafet gën a baax ndax man li ma leen di wax rek nee neen Serigne Touba day man lu ma ca bokk-bokk lu ma ca ñora lam ne ak taaliba gisul lu ko gën fam ko jëlee lu mu gisul ko gën nag loola rek a gën kon nag ñun taaliba Serigne Touba rek lan mm-hmm. kon nag ñun séqunoo Serigne Touba lu gëm ko ak warmaal lu mu am waaye nag lu ngeen nu gën a ubbil Mbàkke nu gën a sant lu ngeen nu gën a yaatal lu gën a sant maam Issa nag nit ku baax la ku am pastéef la koo xam ne du geesu dara dégluwul dara déggul dara kon nag Mbàkke loolu mënu na koo ñàkk seere ndax dañ di ay bokkam te ànd ak moom nga ñu bëgg nga xam ne tax ñu ànd ak moom loolu rek tax ñu di ci jiital ñu di ci eh, sànni kàddu yi tey jéglu bu baax nag ndax ñun bu ngeen toogee sax ñu wax dara Mbàkke jërëjëf ñu lay xamal ni yow yaay moom dégg mooy mooy yow ndax nee na fa fa nga nekk moom nga fa nekkal fii tamit yow la fi nekkal kon euh, lépp daal mi ngi koy gën a yeesalaat bu baax a baax a baax a baax euh, diggante bi te xam ni sëriñ Touba moo leen boole boole leen ngeen war a ànd liggéey sëriñ bi kon nee na daal loolu mi ngi koy téye bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. waaw. Euh, bu yaatu ma di ko xatal mhm. waaw liggéey suñ tubaab bi mhm. ah, ah, dañ koo bokk mhm. ngeen am ci seen cër rek waaw cër bi nag ah, amul kenn ku leen ko mën a mën a xañ waaw ñu nit nekkee wuñ fi lenn sàmmal leen seen cër yooyu ak képp ku ci am cër rek fexe ba ba cëram daal dara bañ seen manqué te moom euh, mii kat li muy li muy euh, di di def doxinam wi ci ah. bi mm-hmm. boobu def naa ne moom lañ njëkk ku ci ku ci ku ci mm-hmm. fekk si rek mm-hmm. moom dana ci am yoon ba ah, dana ci aw yoon bu baax am nga yoon ba ak yoonu ku la ci topp ok moom daal li mu si gën a leeralaat da ko gën a yeesalaat mooy eh, la suñ waajur bu baax ba waxoon ñoom seen waajur bu baax mooy Serigne Saliou nee na du fekk lu yàlla eh, yaatal moo koy xatal te nee na Serigne Touba kenn ku nekk cër ba nga sa am waxtu nekk day gën a yaatu waaye du xat eh, te nee na eh, sarsar ji ban koy sos soxna si bokk na si ñi fi njëkk a gis boobu ba léegi bayiwul ndax man xam naa si dara ndax fii laa jànge ba ñuy commencé sarsar ba léegi soxna si si ñu ko sos ci la bokk kon sëriñ bi nee na loolu boobu léegi nag jógoo ca kon mi ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax ndax nee na yonent bi dafa wax ne képp ku xàll aw yoon eh, yoonu la mu yaatu yaatu yaatu yiw yëpp maanaam day dellu siwaat si si yow kon eh, li ngay def yàlla gis na ko yonent bi gis na ko Sëriñ baa gis na ko nee na nag eh, lim koy tëje mooy ñaanal la suñu borom yàggal sa taxawaay te xam ni fa si ni wuta ko yow benn yoon neen daal waxtu nekk mi ngi yeesal sa diggante ak moom ndax xam na fi nga ko teg ak ni nga ko jàppe kon du def lu ñaanal la suñ borom euh, taxawu la ba yéene ji nga xam ne am nga ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa Sarsara yàlla kàttan na la ba euh, ba nga mën a def lépp yaa ñi nga àndal na waaw <laughs> euh, seen seen cër la. waaw nee na lii kat soxna si seen cër la. waaw te ci ci maanaam cër la yoo xam ne dara bàyyiwuñu fi lu sàmm ko rek. nee na cër la yoo xam ne dara bàyyiwuñu fi lu ñu sàmm ko. dara bañ cee manqué. bañ cee manqué. kon euh, sàmmal leen ko ak it képp koo xam ne rek am nga ci cër. nee na sàmmal leen ko ak képp koo xam ne am nga ci cër. waaw ndax ndax ndax moom euh, sëñ Tuubaa moom ñu ko waxee sànq rek. Mm. di sëñ Saliou wax ne. lu ma fekk mukk lu yaatu ma di ko xatal. nee ni mu ko sànq rek nee na Sëñ Tuubaa moom la Sëñ Saaliw waxoon mu fekk lu lu yaatu mukk mu koy xatal. waaw kon nag ñun ñun sàmmal leen rek nu fi bàyyi. waaw nee na sàmmal leen rek eh, moo leen fi bàyyi. waaw waaw kon gis sëb cër la. nee na kon loolu sax sax sëb te ba nga ba ko waxee sànq ba nga ba nga fii ba nga ñëw di fi ñëwee nii. nee ni mu ko waxee sànq ba nga fii ñëw di fi ñëwee nii. amul woon keneen. boobu amul woon keneen. kon nag euh, ku la ci fekk si rek. ku la ci fekk si tamit. da ngay am yoolu li Rasulullah sallallahu alayhi wa wax ne ku ku aw yoon da nga am yoolu euh, jë xàll ga ko xàll ak ak ku la ci topp nee na ku la ci fekk tamit da ngay am yoolu la yonente boo xam ne ku xàll aw yoon dangay am euh, tiyaaba ja ca ñi nga xam ne maam ñoo la ci fekk si ci yoon waaw ci ca yoon bu baax woowu nga xàll kon nag sëriñ bi nee na mi ngay sant bu baax di la gërëm waaw jërëjëf kon sëriñ bi nee mi ngi lay ñaanal bu baax di sant kon Mbàkke nga def ñaan rek ñaan ñu daal di mën kon ci suñu si jot liggéey kii bi bu ci gën a <laughs> Mbàkke sa sant ñëpp